nga dëgër tuuti rek nga mën leen dalal ndax sa kàddu dina dalal ñenn ñi dina dalal ñu baree bari ndaxte soo dëgëree waxtaan ak ñoom xamal ne tey jii ni ñun ñëpp ala kulli xaal dinañ jaar ci lii donte metti na ñu dëgër rek waxtaan ak gaa ñi ñu dénk leen ni que message baax na bind RIP bind bind baax na waaye ñu julli ñaanal ko ku nekk def ñaari ràq ñaanal ko daf ci am solo loolu lan nga ci yokk Ameth benn kàddu rek nga may ma ko ndeysaan ndeysaan mënul wax mënul wax jëm naa naxtaan ak moom ndeysaan waaye waaye mënul wax mook amadi Badiane fu mu toll nii ñoom ñaar ñëpp seen tànk yi dañoo jaxasoo sami cuuna ngi ne lay mbay seen wéel amet ndeysaan mbay mbay seen wëndeeloo ngi noonu